salaamaaleykum mbokk yi juróom-ñeenti waxtu jot ca pont Serigne Bassirou Mbacké garage Nioro chambre de commerce ak li ko war jot itam cinquième fii ci studio Allé Momar Lo ñu dikk ak ci xibaaru suba gi ci kalamay ko ci atal bu ngeen taaxiloo tuut rek ñu jukki leen li ci gën a fës bokk na ci cantine ya ñu jëlee woon ca yoonu garage Nioro jàpp pont Serigne Bassirou euh, Mbacké ngir yaatal mbedd yi ak taaral Kaolack tey ji askan wi méttitu xool képp la ñu ci jëlee salte ndox canal yay xel euh, ba tàggatembel démb ak dikk bi loolu ak lañ leen digoon daa ngeen ci dégg Cheikh a euh, Diagne ci jamono ji nga xamee ne rek ña doon liggéey ca société bi di Satar seen ak lim toll ci ñetti téeméeri borom kër ñoom daal dinañuy soobu ci ab xeex ngi jote ci xaalis ba kër googee yoreel nga xam ni moom Satar moomee daal dinay tëj ay buntam lu tolloo ko juróom-ñaari at ba tey ji ña nga cay joxoñ nag tuuma waa inspection du travail daa ci dégg Cheikh a taral seen njaboote nangula yéy yàbbi ci seen ay càkkuteef moom maître Malick Sall nee nañu nag bu sonn duñu sonn te lu mu leen jaxal jaxal na leen lu ko raw daa ngeen leen dégg ñoom itam ci biir xabaar yi te bitim réew soxna Ngoone Njaay kan moo ñu fay demal tàggat yaram Serigne Moussa Kane yëgle kaay yi xëyatee ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon bu li lépp yembe ba yi xabaar yi daal di bu wóor ñu ñaanalante wala ta loolu ñu dikk ak yéen dal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi taamu la référence internationale ngir ay xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeeko fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alémé Marlo kaddu seek madame Keneme moo jan ak man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi man di leer nañ leen ko waxee ne lañ koy dooree liggéey kilifa ya def na ca yoon bi di garage Nioro jàpp pont Serigne Bassirou Mbacké jële fa cantine ya fa ne woon samp fay garab tey ji nag la mu yàq mu ëpp fu fa la mu defar tax askan wa am lu leen métti lool Cheikh Tidiane nekk ca ndorteel ba ñëpp bégoon nañ si gannaaw ba ñu xàllee yoon wi jaar garage Nioro jëm pont Serigne Bassirou waaye tey ci tey nag képp ku fi jaar di nga am dëgg lu la métti démb bañ fa jaaree di dem jàngale lañ ko doon waxtaanee ne lii ni c'est pas normal boo génnee nit foofu nga génnee ne na ko defar mais génnee nit ba pare foofu defaroo ko bàyyi ko noonu muy gën a yàqu amul benn njëriñ barab bi ñu taxaw ni ndoxu kanaal yi mooy tuuru ci kaw tali bi nit ñeek ndaamaar yi yi ak puus-puus yi ñëpp mujj a dajaloo lii moo indi ab embouteillage ci dig digal bi

ab jàngalekat sàkk ñu nëbbal ko turam ci kaw moto jakartaam mu ngi xamle nag ne moom li ko gën a naqari moo di garab yi ñu fi defoon mu rafet lool lépp dee na fi mu ne fleuret yi yëpp dee na amut siibi dañ ko doon defare pour euh, génne ñi mais génne nañ ko mais amut siibi mais dañ ut siibi ut ay nit fay leen ñu koy toppatoo dëgg dëgg daal lépp lu ñu fi defoon au début rafet woon mais mujjël bi daal dafa baaxul daal ñi dëkkee ci gox bi ni mel ñoom lu leen naqari Babacar benn waay guy dox waaxu yu tàng mu ngi ñuy xamal nag ne jamono ji tembe tembe ndox yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci peggu garage Nioro bu diwaanu kaw Kaolack mën na indi jafe-jafe ba ci seen dëkkuwaay yi. li ñu bëgg ak li ñu bokk dara bokk ci. lu ñu leen dañ ko paree dañ aménagé fii defar canal bi defar yëpp mais ba léegi gisuñ ci dara defuñ dara aménagement bi fi am ak ne Sénégal moo ko def te daf ko baare ak ay kii cordon kenn jaar war na mënul dara ci quartier bi parce que su nawet bi ñëwee xale yi ak nit ñi fii ci mën na leen indil problème chauffeur si am dëggantaan tiitaange ndax dañoo jàpp ne kanaal yi bu fekkente ne defaruñu ko ba nawet bi gën a xóot bu yàlla gi tawee mën na indi ay accident te lépp ci seen ndodd lay tegu Mouhamed Diop. nit ñi ci kaw tali bi jaar parce que fi ñu war a jaar fi leen kanaal yi di sotti fuñ taxaw ñu jàppuñu man nag lu ciy pexe moom laa bëggoon a xam nit ñi ci kaw tali bi la ñuy jaar yaa ngi gis nit ñi dindi nañ jaaykat yi waaye setut mën naa indi sax lu ëpp accident. bu ñu wëlbatekoo nag ca peggu Stade Lamine Gueye bu diwaanu Kaolack fi jaaykatu kër yi nekkoon nga xamante ne tamit jëlee nañu leen fa lépp lu ñu fa defoon ci ay garab yu ñu jëmbat a wow fi mu ne xobu ngeer jaajëf Cheikh Tidiane Diagne foofee sax la ñuy desandi ndax xataa yu yoon bi moo taxoon ñu jëlee fakkanti ni waaye jàpp ne tey ji la yoon ya gën a xat boole ko ko salte lool ña ngay woon ak kilifa yi ngir ñu curé canal yi boole ko ko wut ci safara ci ni mu gën a gaawee Papa di secrétaire administratif garage Nioro ak Cheikh Tidiane Diagne dafa gën a pire parce que man yaakaaroon naa ne bi ñu dindee cantine niñ fi defoon wax dëgg yàlla dinañ def defar curage ba nga xam ne yoon bi dana yaatu ni mu waree yaatu mais dañoo dindi cantine ba pare defaruñ dara ndox mi fi cantine yi occupé woon ndox mi occupé na ko ba lekk genn wàllu tali bi te loolu du yoon li mu mën a indi ci ay jafe-jafe bari na mooy parce que léegi piéton yeeg pousse-pousse yeeg jakarta yeeg oto yëpp ci kaw tali bi la ñuy dox te xam nga tali bi xatoon na xatraay boo xam ne bu ci loolu yokkee day gën a bon buñ ko dindee léegi dafa gën a xat nag man sama gis-gis sax suñ xamoon ne lii la ñu bàyyi fi cantine circuler rek débordement bi daal mooy canal bi ñu defarul ndox miy débordé di occupé tali bi yëpp loolu daal moo ci problème buñ curé woon canal bi ndox mi dem moom wax dëgg yàlla du am problème. ndox mi kon dafa ñëw ba ci tali bi. lekk tali bi yëpp wax dëgg yàlla. yàgg na depuis biñ dëgëre piré ba léegi affaire bi nii la mel yow gis nga ko bi ngay ñëw doo am foo jaar sax tu es obligé de dans l'eau même pour nga mën a dem. nañ ñëw dimbale ñu defar ñu fi ngay jaar te boo ñëwee fii boo gisee lii danga xam ne Kaolack amul ay autorités yu ko toppatoo te Kaolack dañ ko war a defar. ñaata kilomètres ngeen sax ñu kii ah fii distance bi yëpp kay moom kay ay un kilomètre un kilomètre cinq cent moom war nañ defar curage bi moom ci nu mu gën a gaawee nag. bu weesoo foofu biir garage bi canal yeneen yi. canal yeneen yi moom wax dëgg yàlla xanaa canal bi ci biti de bi nekkee ca côté bee moom sax maire bi danañ ñëw de temps di ko curé mais moom canal la boo xam ne amul fu muy déversé woo bu feesee rek day rester sur place jafe-jafe yu tar la ñuy dund nawet moom wax dëgg yàlla. Pape Ismaïla Ndiaye lu jëm nag ci curage yu rigole yooyee sax setal setal dëkk bi euh, préfet ma nga ci indi ay leeral rawatina ca diwaanu marché central boole kook di jaajëfal ñi nga xam ne rek jóg nañu taxaw tem ngir liggéey dëkk bi te xaaruñ ci dara di sàkku tam ci ñëpp ngir ñu xam ne marché central alalu ñëpp la moom Ahmed Tidiane Thiaw mu ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. bési altine bii ñu génn dañ ci amoon daje bokk na nag kii ñu fa a dem ci marché central bu Kaolack liggéey ci wàllu mbalit bi gën a setal bu ñu fa noppee itam service yi nga xam ne moo yore wàllu hygiène moom itam ni ñu koy waxee mën a pompe wala mu puudar te mooy xeexa doomi jàngoro yi lépp rek ngir yéwénal wërgu yaramu askan wi jamono bu ñu jibee nawee itam lii di rigol yi dañu war di ko ngacc ndax ndoxi taw bi bañ faa taj loolu itam dañu lëngoo woon ak service yi ak mairie ngir gën a càmbaral jéego yi ci fànn boobu ñu waxoon ñu tase fi tey mën a def liggéey booba waaye dafa am lu ci xew lu neex a dégg dafa am ñoo xam ne bu ñu féetewoo di wax ak di coow dafa am ñu nga xam ne ñoom dañoo féetewoo di jëf ak di tuur ñàq mooy ne dëkk bi am na ay kuréel yi fi nekk di ay ndaw ñoom ñoo takk seen ndigg ba ñu déggee lii ñu nar génn seen kër wut seeni jumtuwaay diggante peel ak burwet fas yéene jàpp ci bale bi ñuy bale marché central xam dëkk damoo wuñu ko dañuy def ngir seen dëkkuwaay maa ngi leen di jaajëfal di soññ yeneen ndaw yi am yéene boobu dama wax ne bare na lu ñuy jox xarde maire yi wala beneen kilifa waaye léeg-léeg dañ koy def ci anam boo xam ne rek li ñuy wax def lu yomb laa koy tuddee suñu bëggee marché bi set nañ jàpp nañ nangu ni suñu alal la ñun alalu ñëpp nag ñëpp koy sàmm waaye ci ni ñuy doxalee dafa mel ne dafa am ñoo xam ne ay buur lañu yoo xam ne am nañ àq ak yelleef def ci di taqal fu mu leen neexe ak nu mu leen neexe am ñeneen ñu nga xamante ne nii benn warugar la ñu am mooy fu waay taqalee nu mu ko neexe nga ñëw raxas ko ko bale ko fobeere ko ba mu mel moom na mu bëggee dama wax ne loolu amul fenn marché bi ñëpp ciy jàpp mu set bu ñëpp kenn ku ne di def li la neex duñ ci mësa am li ñu bëgg. mu nekkoon préfet bu Kaolack di Ahmed Tidiane ceew dañuy seeti ñeneen ñu meex loolu ba futtu muy kenn ba yeewoo ca commune yuy tax ci wàllu dem ak dikk rawatina ci yoon bi dox ci diggante kër Malick Ramata ak kër Saroki Nouab yaay seq na ci waxtaan ak jaraafu dëkk ba. tali bu jógee kër Saroxi dem kër Malick Ramata fi ci l'arrondissement bu Wakunguna ay yàqute dëggantaan la nekk askan yi nekk ci gox bi saa su ne ay jafe-jafe lañuy am ci seen wàllu dem ak dikk bi suñu sukkandikoo ci Saliou Ba mu nekk maire bu commune bu kër ma ba Diakhou Ba yoon bi nga xamante ni moom moo jógee kër Malick Ramata dem ba kër Saroxi fi mu toll nii dem ci yombut ñoo ngi def ay pexe ay xelaat nag ndaxte ba tey même bu fekkente ne état bi moom moo ko réalisé ñi nga xamante ne ñoo chargé wu à ce que waa Ageroute ñu ngi fi jot nañoo commencé ay requêtes gis nañ état moom moo ko fi defoon ànd ca ñim ci war a ba mu taxaw fi tardement bu am ci wàllu réhabilitation tali bu jógee Kër Maba dem ci Poroxaan mu nekk bëgg-bëgg askan yi nekk si gox booba le maire Ba wax na ci tamit ñu ngi am yeneen mébét Kër Maba Proxaan maa ngi doon jokkoo ak ñi nga xamante ne di ñaan ñu xam ne lii tegu ci suñu kaw nañu ko jeexal lii su fi amutoon projet yi ñu namm pour Kër ba ñun xam nañ dayo projet yooyu naka la ñu toll ci tolluwaay projet yooyu noonu ni ko noonu lépp loo xamante ne moom mooy coono askanu Kër Maba li ñuy daj lépp dana wàññeeku luy mun a wax mooy ni askan yi nekk fi ci commune bu Kër Maba Diakhou Ba ñooñu dinañ toog di xaar wala saa di continuer di dund ay jafe-jafe ci wàllu dem ak dig bi surtout ci jamono nawet yi nekk nii balaa ñu defar leen seen tali booba. jox la cër Nouabia yi ci tali boobe sax la ñuy jaaree dem ca Cité ñax di ab gox nekkee ca diwaanu ndax géej askan ba fa yeewoo ñoom ña itam ña ngay jànkonte lay jafe-jafe yu tax ci ndox ndoxteelu nawet bi tax rek ñuy dànkaafu l'autorité yi donte daxa ump leen ca gox ba ngir rek ñu am lii di baax a Diop. amuñu assainissement fi ñu dëkkee dex la woon ndax bu ñu mu dëgmalee nawet rek seen xel daal di sori ñoom ñooy askan wi dëkkee ci gox bii di cité ñax di xamle ne ñoo ngi jànkuwante lay jafe-jafe yu tar seen chef de quartier bi nekk Adja Fat Ndiaye Maringuer di ci dikkaat ak ñun ku ne xam ne fii ndox la woon dex la woon boobu nag léegi nag waa cité ñax léegi maire bi kii ko jox ko waa quartier bi ñu dëkk fii moo tax léeg bu tawee kër yi dañuy indoon ku mbedd yi dañuy indoon wax dëgg yàlla nawet moom sonn noonu doonte lu nu mel umpul autorité na lu yàggul dara préfet bi woon na leen ngir ñu mën a jël ay motuwaay ba mën a jàmmarloog nawet bi waaye du leen lu ñu dégg gum lu dal seen xel sonn nanu dañuy nga ci bëgg dee wax dëgg yàlla préfet woote woon na sax réunion li mu wax yëpp daa ko fekk am na lu nga xam daal fekk si nanu ko ndax fi mu ne daal inondation bi bu tawee dinañu sonal lool lool lool lool ak loolu gox bi di cité ñax installation bi jëm ci wàllu courant nekkul ci anam bi gën ne nawet yi ñu génn yëpp bu potu lamp yi faatul doomu aadama daal dinay fal lenn ci ay mala waa gox bi di njàqare ci mën lamp yi aussi ndax léeg-léeg poto yi dafa am étincelle te xam ndox ak courant wóorul itam fi mu nekk lenu nag gën soxal seen càkkuteef lépp mooy ne assainissement la ñu bëgg li ñu gën soxal mooy assainissement assainissement daal bu ñu ko amee rek suñu tëddee daanu nelaw loolu tax ñoom askan wi dëkkee ci Ndiolofène Sud di laaj ndax dañu cee bokkut ci la ñu bokk nag moom ci la ñu bokk ndax Ndiolofène Sud bi ba mu jàllee ñun yaakaar na duñu jàll si ci ñun waaye ñu ngi dundee yaakaar ci assainissement daal bu ñu ko amee rek suñu xel dina cas bu ndox laale suuf file ci diwaanu Ndar géej li ëpp ci quartier yi nekk file ci soor dañuy dal di inondé ngir ñàkk lotissement lu nu mel nag di faral di jur ay jéye tax ñuy dànkaafu autorité yi ngir ñu karal leen li leen mën a dikkal ëllëg Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop. yéen a xibaar yi ci Alfayda FM ñaareelu pàcc bi ñu ngi ko jagleel wàllu koom junjoon nañ leen koy itam ci bopp xabaar yi ba mu tëjeek léegi ëpp na juróom-ñaari e, at moom kër gi di sa Satar terewul nag ay liggéeykatam daal dinañuy sóobu ci ab xeex ngir jotee ci koppar ya ñu leen yoreel la ñu xam ne nag mooy lépp la mu laaj ñu ko ci def ci ab janook taskatu xabaax yi la ñu fësale seen ak naqar seen ak lim ci ñaata la toll Cheikh Ababacar Dieng seen lim toll na ci ñetti téeméeri borom kër am na sax ay xale yu góor yu ci bokk ñoom ñëpp joxante woon rendez-vous ci quartier Léona fii la ñu amalee jënoo ak taskatu xibaar yi Cheikh Thiam yoroon seen kàddu ñun ñëpp ay liggéeykat lañ woon parce que daf nañ fa ñeenti at bi ñuy daane gaar bi ba niñ ko fi dindee ba ni ñuy tabaxee ba dindi raay bi yëpp ñoo liggéey lépp ba mu yegg lépp ñoo ko def daane gaar bi génne matériel bi ñu doon tabax di tabax ñu defar tali bi ba mbadaxun loolu yëpp ñoo ko fi ñu ngi fii yoo xamante ne kenn jotu benn dërëm ñoom ñi nga bi ñuy wax Satar moo leen doon liggéey liggéeyloo boobaak léegi mu nga bëgg a def ay at ca njëlbeen toll woon nañ ci juróomi téeméeri doomu aadama ji teg fukk ak juróom ñaar téeméeri nag ak fukk ak juróom fay nañu leen ñetti téeméeri doomu aadama yi des ñu ne seen xaalis lañu laaj kër googule ginnaaw bu ñu ko liggéeyalee ay at Cheikh Thiam liñ nar a def moom jël su topp ko bu sus koofu rek lu ñu yoon may rek ñu am ko bu laajee ñu jël avocat ñu jël avocat xeex ko ba fu mu mën a yem rek mu yem fa amul dara luñ ci dellu gannaaw benn yoon kan nga ne xeexal sa taar jamono daan liggéeyee si satar nga xam ne ñoo tabax cœur de ville dindi fi raay bi ba def fi tali bi ne nañ leen fay seen xaalis ndax ñoo ko moom def nañ démarche fu ne pour ñu fay ñu xaalis loolu tax ñu dem ci inspection inspection ci boppam moom moo def lobby boppam chef de chantier yi fi nekk fii yëpp kenn fayeku ci amul benn chef de chantier bu yor benn dërëm ñi fay daal deux cent fay te boo xoolee ñi fay amu ci kenn koo xamante ne de chantier milin war yooyu ñooñu leen jël fay leen mais ñi nga xam ne ñooy chef de chantier yi kenn jotu ci benn dërëm parce que man mi ci responsabilité bokk man ak suma grand frère ñun ñoo tegg raay bi yëpp ba mbanaxun suma grand moo doon chef de chantier bi am na boo yoo xam ne moo leen fa indi woon te fay nañ leen xam nga loolu tegul ci yoon nit mënul indi ci béréb mu di fa liggéey fayeeku yow ma ko fa indi fayeeku loolu ci lu mu tegu affaire mujjee di jotaat li dese seen xaalis ñoom borom entreprise Satar fexe ñoom it ñu mos dara xeex bii ñu sumb ñu ne àpp nañu ko sax ba amal gerewu xiifal ci kaw Kaolack. sant la gërëm la deseeg sa micro ci la xeex ña ngay xam xamle nag sumb nañ ko waaye duñ ca dellu gannaaw benn yoon ànd ak di xam ne waa inspection du travail am nañ ci wàll la ñuy laaj nag du leen lu mooy seen ak alal ndax seen ñaq la dañuy deseeg Cheikh am ba léegi ak Cheikh Ababacar Dieng. dañu doon liggéey setaar def nañ fa presque ñeenti at signé lu ñu contrat def lu ñu dara lu dul ne dañ ñuy contrat toog nañ ne benn moment nag ñu jël dossier yi yóbbu ko inspection de travail léegi nag bi ñu ko yóbbu inspection de travail inspection de travail ñoom def li leen neex seet ay nit ñoo xam ne presque ay deux mois lañ fa def ñu jël xaalis bi nga xam ne moom la ñu waroon fay ñun xaalis bi génn ñu fay ko ñooñu ñun ñi nga xam ne def nañ fa quatre ans benn dërëm joxuñu ko jusqu'à présent léegi nag ñun nag ñun fi mu ne nii dañuy topp suñu alal li nga xam ne ñoo ko moom la ñuy topp ñu fay ñu suñu xaalis te nañ ko nag ba leen neex

ci benn dërëm loolu nag moo ñu jaaxal moo tax ñu koy topp di laaj ba xam lan moo tax fay ñun ñëpp ko engagé woon ñun ñëpp demoon inspection bi ñu demee ba benn moment signé ñu contrat ñun ñëpp a dem inspection problème ñoo xam ne dañ leen doon laaj douze mille francs yaa ngi dégg ñoo xam ne mënuñu ko ñu def seen lobby bopp ut ay nit ñoo xam ne mën nañu joxe douze mille ñu génne leen loolu rek la nii ñu dañoo laaj ku ne douze ko am na sàkkee ci syndicat bi di SYTJUST ñoom nag ña ngay wéyal seen ak xeex ba léegi na ñu beneen grève gannaaw ba ñu jàppee ne jëwriñ ba leen jaboote nangu la wut saafara ci seen ay càkkute fa tax ñu ne nag fileek ah, nanguwul ah, bàyyi ñoom du it duñu ah, bàyyi donte nag ma nga yàqal sénégalais yi maître El Hadji Aye Boun Malick Diop mu ngi ci micro soxna Ndeye si Cissé sunu xare bi ñu dëgmal ñaari ay bés duñ koy wéyal gën ko taral altine bii ñu dëgmal muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin deux mille vingt dinañu dëgmalaat beneen xeexu ñetti fan soixante douze heures renouvelable li ko waral mooy ñun travailleurs de la justice yi dañoo takku ngir ñoŋal li nga xam ne ñoo ko moom muy sunuy intérêt matériel et moraux fas yéene yiir sunu dignité grève bii nag ñuy def am na conséquence yu doy waar maanaam mi ngi yàq qualité service de la justice yi ngi bloqué même exercice du pouvoir judiciaire te mi ngi yàqal sénégalais yi loolu nag li ko waral kenn rek moo ko indi muy maître Malick Sall ndaxte bañ ko falee mu nekk ministre de la justice président Macky Sall da koo jox feuille de bu leer nañ te ci feuille boobu defar mbiru travail de la justice yi mi ngi ci waaye moom ba mu fi ñëwee ba tey dafa nekk li nga xam ne ñun mën nañ ko woowee déni de devoir et de responsabilité maanaam deful liggéeyam li ko président bi santoon defu ko loolu nag moo tax ñun ñu gis ne comme daf ñoo yàqal te ñun wax nañ ak moom ci te gënuñoo ëpp ñu fa ay droit nag ñu fas yéene jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom te lu mu ko jaral rek jaral nañu ko lu ko ëpp ndaxte li ñuy laajte ñun ay Sénégal lañu yelloo nañ ko te am nañ ci droit te fii lañ koy laajtee fii lañ koy jëfandikoo ñoog ñuy njaboot kon boog na ko xamee noonu na ko askan wi ñëpp xamee noonu. ñu des ci mbiru euh, koom seeti beneen jëwrin muy ka ñu dénk wàllu napp gi moom ma ngi woon ca diwaanu Ziguinchor àndoon ak délégation bu takkoo takku ngir saytu liggéey am solo yañu fa euh, tàmbali ngir ñoŋal rek amal nañu ko fa Alioune Ndoye lay wuyoo mi ngi ci micro Mohamed Sagna ci ndigalal président de la république mi nga xam ne dafa laaj njëriñ yëpp ñu baral liggéey bi ñu gën cee taxaw pour que li mu séntu ci seen i impact ci wàllu développement réew mi économie réew mi ñu mën koo gis te mu amal njëriñ askan wi donc tey dañoo ñëwoon ànd ak suñu département ay responsable fekk si itam ay responsable yoo xam ñoo fi teewal département bi maanaam ministère des pêches et de l'économie maritime fekk gouverneur nag ak préfet ñu ci région bi fii dalal bu mucc ayib ba pare organiser ñu programme boo xam ne ci diir bu gàtt mënoon nañ dem seet suñu chantier yi ci ëpp solo lim nga sànq quai de pêche Budodi nga xam ne ñu ngi koy réaliser ak coopération internationale bi Pays-Bas itam fii ci port de commerce bi pour xool fa mu toll tey ak opération bu am solo bi nga lim muy li jëm ci wàllu ANACAR ñu jàpp ni port bi li ñu def ci ANACAR war nañ ko mën a def itam ci yeneen xeetu yi nga xam ne ay koom-koom la bu ne fii ci Ziguinchor ak li ko wër pour fexe daal Ziguinchor doon ëpp bi ñu xalaat au niveau sous régional fii nga xam ne lu bëri mën na fay jaare yegg Dakar wala dem ci yeneen i réew euh, gërëm di ci sant responsable yi ak euh, directeur yi fi ne di ci sant administration territoriale bi nga xam ne gouverneur mooy seen njiit fii waaye itam di ci sant ñi nga xam ne ñoo fi teewal élus yi donc askan wi muy président conseil départemental ak conseil yi mu àndal muy honorable député maire de la ville de Ziguinchor ak élus yi mu àndal di rafetlu seen taxawaay di wax ni ah nii la maanaam liggéey bi il faut ñu koy saytu bés bu yàlla sàkk euh, nit la jox pour ñu yeggali ko nguur gi nguur gi jébal ko askan wi te jàpp li ma gis fii mën nañ Dakar. dañu jóge ko Ziguinchor ñëw ci région bu Kaffrine ngir askan wi yëpp jotee ci xaru tabaski atum ren yi nga xam ne mi ngi yemook mbas mi di coronavirus kilifa yi nag tàmbali nañoo jël seen ak matukaay jaaxee ko ci ab plateforme ak li nga xam ne rek mooy bakk bi ñu duppee sama xaru tabaski li ñu bëgg nag mooy am li mu xar yu takku takku nga xam ne dina ëpp lool la ñu amoon daaw am ndaje ko waxtaan ak di soo sottante xalaat la amaloon ci teewaayam moom Mohamed Wilane. 2020 kilifa yi fi toogal nguur gi ak ñu yor wàllu sàmm bi amal nañ ab ndaje mu yaatu ngir jàngat li nga xam ne mooy wàccaayu tabaski bi docteur Fatou moom moo jiite élevage bu Kaffrine. tabaski daaw ñun fii ci région de Kaffrine situation bi li liñ ko mën a waxee mooy que ni jaaroon na yoon ndaxte bu dee ay xar yu yuñ doon xaar rek jotoon nañ xar yi xar yi bëri woon nañu te li doon génn di dem ci dëkk bi tamit takku woon na bu dee tamit côté wér gi yaram gi amuñu woon benn jafe-jafe yaram si jur gu ndaw gi aussi euh, ngooñ bi xawoon na cher tuuti mais aliment bétail bi moo ko gënoon cher waaye ba mu fa demee noonu aussi ministère dafa autorisé woon euh, commission départementale yi pour que ñu jënd aliment jaay ko prix subventionné. ci atum ren mi nag ñu ngi xaar lu toll ci juróom-ñeent fukki junni ci région bu Kaffrine. daaw amoon nañu juróom-ñeent fukk ak ñaari junni yu tegal yu ñu présenté ci suñu marché yi foofu rek la ñu mën a basé parce que daaw bañ ko defee tamit gis nañ ko ni dugal nañ ci marché bi lu am solo donc ren bu ñu mënul am am lu ko ëpp tamit bëgg nañu am lu toll noonu Covid 19 ak ay impactam frontières yi ñu tëj yooyu ragal nañ ne ñi daan jóge Mali di jóge Mauritanie di indi ay xar xëy na duñu ñëw mënuñu daal basé ci ñoom loolu moo tax nag ba ministère jël ay devant bind ay lettre correspondance président Mali ak président Mauritanie pour ñu yombalal ñi nga xam ne dañoo bëgg a jóge Sénégal dem di jëndi xar foofu ubbil leen pour ñu mën a dem loolu tamit ministère des affaires étrangères daf ci taxaw taxawaay affaires étrangères moo leen di signaler autorisation. ngir gën a yombal askan wi ñu am xaru tabaski am na benn plateforme bu ñu duppee sama xaru tabaski. sama xaru tabaski moom slogan bu bees la parce que ministère de l'élevage ñoom ñoo ko taxawal ci fan yi ñu génn nii mu nekk lu nga xamante ni comme ni ma ko waxee léegi rek ci exposé bi nit ki booy dox jamono day dox da ngay ànd ak moom ngeen di dox loolu moo tax ministère teg loolu plateforme la bu ñu waxee plateforme nag mooy fu nga xamante ni nit ñi mën a jokkaloo ci xarala bees yi jaaykat yi ak jëndkat yi daal lay lënkale. ginnaaw boo xam ne dañoo tëj ay frontières Sénégal ndeg jàngoro coronavirus ministre bi ñu dénk wàllu càmm gi dina ci lëkkaloo ak nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci affaire étrangère ñu mën a may ndigal lii di opérateur yi ñu dem Mali wala Mauritanie uti fa xar ngir xar bañ a ñàkk biir réewum Sénégal Mohamed eh, Wilane eh, donte nag eh, ubbeeguñu frontières yi waaye xar moom am na ca luuma bu kër ma jabel li ci ëpp nag ay xaru yar la cher na lool waaye njënd meeg njaay maa ngay dox na mu waree jaaykatu xar ya nag ñoom dañ ci boole nag mooy takk masque ngir mooy tondiku feebar bi di coronavirus Moussa Cissé ak Jim Diassé ay jaaykatu xar la ñu ñu ngi ci micro noir bi yaay. ah na waaye nag fu ne nii bëreegul vraiment li muy jar nag dëgg seer na trop waaye njëg mu amul nag parce que xar amul waaye nag njëg amul daa ngi parce que période bi ñu toll la pour le moment bëggoon nañ xar yi si foofu ñu gën a yomb parce que fu ñu pële moom fu ne xaalis amul loolu daal moo leen jamono wax xar moom temps yi wax dëgg yàlla bëreegul ne mais xar yar ñoo gën a gënagum daal actuellement nag cher nañ ça dépend am na cent cinquante deux cent cent vingt cinq ça dépend ci xar bi loolu daal am na waaw xam nga corona bi trois mois yi vraiment xam naa kenn liggéeyul quoi moo tax dara dox doon mais pour le moment bu ñu ma frontière mën naa affaire dina dox am na yaakaar dina dox parce que fu ne nii foo jënd ko xar mënu ko ñàkk a jënd parce que moom sénégalais moom xar mënu ko ñàkk a jënd koo gis sénégalais bokk da wutee nañ réew yi kër gu dugg daaka jëm dañuy tabaski parfois masque bi am na solo parce que masque rek suñu bopp la ñuy aar parce que masque moom ku ne xam ne baax na parce que feebar bi baaxul parce que trois mois mu juróomi tëré mu dara moo dox jar de waaye nag taxul mu yomb xar nag am na moom ñu ngi jaay ñu ngi jar de jënd kar yi client ngi jënd ñu toll ñu toll état ñu toll nii daal moom seeragul bu ëpp neexul bu ëpp ñu toll si jaay rek waaye ñi ñu xam xar seeragul dañuy xam rek seeragul bi mën na koo jënd xaalis amul te ñi bëgg bëri nañ ñu ngi jar de nit ñi nag liñ bëgg ah, a na waaye seerul de ah, waaye takk moom masque moom jaar naa takk boo deful def awaa ci yoon wala takk ki moo war lu xam ne d'accord nañu takk masque képp ko am masque na nga ko takk gannaaw toogu la masque yooyee sax nag sous préfet bu Koumbal moom man ma ngay ñaax ndaw ñi ngir rek ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a jël seen ak matukaay ngir gën a mën a moytandiku feebar bi ndax mi ngi fi ba tey ji jógee gu fi raw donte nag amaguñu ak ah, moom Abdoulaye Daouda Sall mi ngi ci micro Cheikh ci ñoom ñooy jeunesse bi di leen ñaan ci bépp kuréel kuréel jeunesse communale yi yëpp ak ASC yi surtout ñu dugg ci village yi sensibiliser wax na leen ni ah nañu fagaru fagaru moo gën faju ndax mbas bi ba léegi mu ngi fi te dañu seetlu ni temps yi nit ñi dañoo relâché complètement dañu bàyyi geste barrière yi sol masque bu ñuy wax c'est obligatoire dañ ko digle ministre de l'intérieur moo jël arrêté rendre ko obligatoire fooy dem da war a léegi takk masque kooku si geste barrière la gis nañ ne nag ñu bëri duñu sol masque même population yi en masque mais ñu gën a yokk pour nga xamante population bi yëpp nekk dina am masque en tout cas première mesure barrière bi nga xamante moom la war a def mooy takk masque nañu gën a dëgëral bu ñu bàyyeeku nañu gën a taxaw pour xeex ak masque masque baa ngi fi de damul donc approche bi léegi approche communautaire la dañu war a def sensibilisation di lancer appel maire tamit ñu gën a jàpp ci euh, sensibilisation bi ne leen ñu gën a fagaru ñu ngi laal bant nag amaguñu benn cas mais nag bu ñu nelaw bëgguñu ko mu nekk nii nañu gën a fagaru defaruwaat jeunes yi nañu bàyyi di football di rassembler nañu bàyyi loolu parce que tamit mun nañu teg ku nekk si ginnaawam benn sécurité état bi amul moyen boobu moo tax it dañu war a gën a insister ci sensibilisation bi vraiment responsabilité bi individuelle la comme ni mu koy waxee balaa muy nekk collectif donc ñun ñëpp dañu ci am wàll muy presse bi muy maire yi muy euh, autorité administrative yi étatique politique ñëpp dañu bokk ci xeex bi. wàllu koom-koomu réew mi ak jàngoro jooje sax di Covid 19 bés bu fi jóge ko ana nan la ñu mën a def ba ah, koomu réew mi delluwaat fa mu newoon ba nga xam ne itam ne ah, ndóol dina wàññeeku ci mim réew waaye itam duñ ko yég nañu ko war a yége Cheikh Tidiane Sarr seq na waxtaan ak ñi seen xam-xam ci jëm ci wowle fànn. ban yoon wala ban pexe la ñu war a nas ngir mën a yëkkatiwaat suñu koom-koom gannaaw bi ñu génnee ci Covid 19 bi ko loolu nag bu ñu sukkandiku ci économiste bi ñuy wax Boubacar Traoré pexe bi lenn rek la jàppalewaat ndaw yi rawatina si seen projet yi ñu mën ko financer bu baax a baax. tey jii nii li nga xam ne moom la ministre yi ak gouvernement bi war a gën a taxaw mooy ñu fexe xale yi nekk ci biir dëkk bi yor ay projet entreprise yi nekk ci biir dëkk yor ay projet état bi xaalis bi ba pare ñu def benn système de coaching dëkk bu ndaw boo ko yoree booy financer seen jeunes yi da ngay dugal système de coaching système de coaching bi mooy lan buñ la jëndalee matériel mbaa ñuy jox la xaalis duñ la bàyyi noonu mais de temps à un mois de mois bu ne dañ fay jaar xool liggéey liggéey ndax moo ngi avancé wala. su lu jëm si croissance su Sénégal bi nga xam ne boo moytuwul dina wàññeekuwaat bu baax a baax Boubacar Traoré jàpp ne ak lum ci mëntu doon croissance nekkul loo xam ne lu ñu war a lekk la waaye lu ñu war a mën a yëg ci nekkinu askan wi. taux de croissance d'accord tey jii nii su dee entreprise étrangère yi ñoo yor économie bi mais bu ñu amee seen xaalis dañ koy yóbbu bitim réew su boobaa ñun duñ ko gis mais bu dee entreprise sénégalais yi ñoom ñoo yor koom-koom bi mais bu ñu bëree xaalis da nga koy yëg ci salaire yi ci kër yi da koy yëg ci lépp. bi ñu dénk wàllum koom-koom fii ci réew mi di Sénégal amal ay plan yoo xam ne namm nañ ko ci jaar ngir mën a yëkkatiwaat suñu koom-koom ba tax Boubacar Edouard Traoré jàpp ne loolu yëpp lu baax la waaye nañu gën a bàyyi xel ci suñu entreprise yi. suñu entreprise yi ci wàllu financement assister leen ci wàllu assouplissement de l'assiette de l'impôt assister leen ci domaine yu bëree bëri loolu c'est très important. suñu koom-koom boobu sax boobu moytuwul dina nekk ci guuta gu métti métti bu ñu sukkandiku ci kàddu président de la république Macky Sall wante àndoog loolu yëpp nag situation bi mën nañ ko maîtriser ci kaw ñu boole ci acteurs yëpp. yéen xibaar yi ci Alfayda ñaar fukki simili ak juróom-ñett moo bootu ci gannaaw euh, juróom-ñeenti euh, waxtu ca P12 lycée technique El Hadji Abdoulaye Niass bu Kaolack daloo nañu ay gaanuwaay yu méngoo ko jamono ci ndimbalal ak dooley amical bi ëmb ndongo ya fa doon jàngee xayma gi toll ci ñetti million ci sunu ay koppar kenn ci ñoom di Aminata Diop di jàngalekat ca université bu Dakar mi ngi ci micro noa bi yaay. lan moo tax mu ñu jóg dañoo nekk ay ñoo xamante ne fii la lu yàgg vingt ans vingt cinq bi maanaam ñetti weer la am bi ñu dajee li ñu njëkk wax lan lañ mën a def pour suñu école ndax école day loo xamante ne day lu doy waar ci dund nit fun la tàggate ba nga mën tey li nga mën waaye day foo xamante ne da nga faa am ay ndaw donc dund fi lu neex dund fi loo xamante ne vraiment lu jar a fàttali ko la mu des ci suñu xol ba léegi moo tax bi ñu dajee li ñu njëkk a xalaat mooy lan lañuy def bi ñu ñëwee wax ko suñu nattangoo bi di jigoo nga xamante ne daf fa jàng comme ñun ba pare yàlla def mu nekk njiit gi tey mu wax ñu li ñu soxla muy ay toilettes yu baax donc ñu jël suñu ñaq def jël suñu doole def si jël suñuy xalaat def ci ba mun koo defar ba tey ji nga xamante ku nekk mën na fee dugg ci sutura parce que loolu mooy en ay toilettes dugg fi ci sutura loolu moo tax ñu ñëw duñ fi am nag ñaanuñu yàlla yam fi dañ naan bu njëkk la am nañ yeneen mbébét mbébét ci fànn yu bari yu jëm ci njàng mi yu jëm ci encadrement bi jëm ci suñu diggante ak yéen parce que suñu fi jógee dem dañoo war a nekk ay roykat ñoo ka jiite commission éducation bu conseil départemental bu Kaolack moom ñaax na dongo yi ngir ñu xam njëriñu lañ leen fa sampal te fexe nag jéem a roy ci ñoom boole kook di gërëm proviseur ba moom Pape Diallo ak Noa proviseur li nga dox nag la kilifa di dox ñun am nañ chance Kaolack mais malheureusement duñ ko exploité sans risque de me mun naa wax quatre vingt du Sénégal fii la génne benn exemple rek laa la siy jox wala ñaar muy ki nga xam tey mooy président la République du Sénégal Macky Sall Valdiodio la génne doon Gaston Berger madame Aminata Touré présidente du conseil économique social et environnemental Gaston Berger la génne madame Mariama Sarr ministre mag ci wàllu yoon te ñii ma gis nii déglu naa sànq soxna si Aminata génnee ci école bi nekk professeur d'université kon vraiment moom jàng yi ngeen leen jàngal fii nasaxaayu donc may wax xale yi ne leen defaluñ leen toilette parce que toilette mais li ngeen leen mun a feye tey mooy bu examen yi jotee ñu ne Ablaye Niass am na concours bu boobaa ñoom danañ kontaan parce que ñoom bëgg nañ ëllëg ngeen mel ni ñoom waajur boo gis bëgg na doomam romb ñoom yeesal mbégteem moom Alassane Djigo ak Noa Biaye. su ma gisee ñoo xam ne bi ñuy def seconde ñoo doon toog ci benn table banc ñu ñëw tey taxaw di ma accompagner xool bu bég laa ci am maa ngi gërëm conseil départemental di gërëm son président Baba Ndiaye mi nga xam ne mosul jóg di accompagner lycée bi di ñu jàppale di gërëm inspecteur d' académie Siaka Goudiaby mi nga xam ne moom lañ affecté fii récemment ak Kaolack biñ ko affecté fii ba léegi gis nañ action a biñ ko def xëy na période koy def période boobu xawoon na critique mais vraiment wanal nañu gaaw wanal nañu diligence ak promptitude pour que mu permettre ñu def travaux yi ñi nga xam ne ñoo tax lii am tey muy amicale des anciens du lycée Ablaye Niass li tax ñu leen di gërëm ak can du ci alal ñu fi def mais acte biñ posé mooy acte bi nga xam ne dafa noble dafa doon acte bu rëy tey ñoom ñu sentir ne war nañ dellu siwaat seen lycée jàppale seen lycée bi nga xam ne moo leen tax tey en partie ñu ñu doon mais jàppale ko ci moment boo xam ne seen benn naataango bu nekkoon ak ñoom di jàng moo fi nekk comme loolu porte bu rëy la ci li amical bi def man nag ba ma leen di oo dama leen doon oo non pas pour ñu jàppale ma sax ci koppar mbaa ñu jàppale ma ci leneen mais dama leen doon oo pour ñu jàppale ma ci xalaat jàppale ma ci ñoom seen nekkin nan lañ mun a suñu élèves yi nga xam ne nekk nañ Ablaye Niass war nañ mun a xool ci ñoom pour que niñ def tey ba doon tey ay docteur ñi doon ay magistrat ñi doon ay DG ñi doon ay leneen ak leneen ñu xam ne ko fii parce que vraiment bi ñu tegalee le protocole sanitaire école yu bëri jaaxle woon nañ ñun sax bokk nañ ci école yu jaaxle bu ñu anciens yi ñëwee nag defaral ñu lu mel nii réfectionné ñu toilette à hauteur de 3 millions defar ko ba mu doon ay bijoux léegi ñoom dañoo teggil dëkk suñu biir tànk xabaar yi bitim réew xabaaru euh, bitim réew ci roppalaanam la ñuy dugg moom soxna Ngoné Ndiaye Kane yaa ñu koy jukki lenn fan lañ koy dooree Ndeye Khady gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi jukkim xabaar yi biti réew yi nag tey dañu koy doxee ca Malawi euh, foofee nag gannaaw ba ñu amalee seen jongante tabeef njiitum réew ba noppi mu doxoon nag ci diggante Peter Mutharika ak ki tamit ki nga xamante ne rek moo di Lazarus Chakwera ña nga ñuy xamal ne nag ci gaaw gile weesu commission électorale ba ñu dénk fànn wu ni mel ca googu la réew daal dinay jox nag raw gàddu gi ki nga xamante ne rek moo di Lazarus Russes mi nga xamee ne nag moo nekkoon kàngamu ku jékk politique ba donte ne sax amoon na rek juróom benn fukk ci ay xopp ci téeméer boo jël waaye teewul rek ka mu doon jonganteel di Peter Mutharika moom la mu wax mooy ne nag euh, mbir moomee daal dafa am njuuj njaay ci ba tax na moom mu ne àndul ci victoire ba ñu ko jox waaye nag lum ci mënti doon rek mooy ne moom Lazarus chaque weer moomee ni ki démb ci dibeer ga nag daal dinay prêter serment maanaam daal daal di taxawaatu wàcc ne tamit dong ba ca réew ma waaye tamit daal di nay wane mbégteem gi mu am ci pal gi ñu ko falaat ànd ak wax ne nag ne moom nit yàlla la woon moom lay des di doon ndax pasteur évangéliste la woon ba tax na rek mu ne lii ñu ko yenn nak dina oyof ndax daf koy def rek mission ngir jaamu ci suñu borom ba tax na nag ma ngay wax réew ma ñu ànd ak dal ndax tamit dina jéem kéem kàttanam rek ba duñu am gàcce ca pal ga ñu ko fal waaye tamit nag dina fexe rek ba génnee leen ci ndool ak it ci wàllum ak ger xabaar yi bitim réew. jukkim xabaar yi euh, biti réew yi nday xat yi ñu daal wéyandi nag daal dem ci république démocratique du Congo euh, foofee nag coow laa nga ni fa kur ci langue politique ba lépp nag mi ngi tukkee ko ci jàpp bi nga xamee ne rek daal di nañu koy euh, ne nag moo di jëwrin ngi nu ngàll wàllum yoon foofee di Célestin Tunda Yakasende jàpp googee ñu ko jàpp nag tax na rek yélimaani jëwrin ya foofee di Sylvestre Iyunga wane na xaram ci mbir mi waaye tamit nag daal di cay joxar bi baaraamu tuuma njiitum réew ma di Félix Tshisekedi di di wax ne nag la mu def ak lu mu ci mënti doon rek ñaaw na ba yegg ci lool ndax nag lu ni mel dina gàkkal seen ak coalition boobee nga xam ne nag mooy coalition ba fal njiitum euh, réew ma. xabaar yi bitim réew. jukkim xabaar yi bitim réew yi ñu wéy ak moom daal di dem ca Royaume-Uni foofee nag njiitum réew ma di Boris Johnson moom nag gannaaw ba nga xamee ne rek mbas mi di coronavirus daal dinay faagaagal nag seenum koom ga foofee tax na nag mu doon waxaay bés dina jëmmal ab plan de relance boo xamante ne rek dina mën a may nak koom ga mu amaata ndëgër laay tax na nag askan wa jamono ji ñoom ñëpp rek boo ko toog ciw nen ngir bëgg xam rek moom njiitu réew mi ana plan boobe mi wax fan la ko nar a jaarale ak itamit wàllum tabax ga mi wax nag nan la ko nar a jëmalee waaye lu mu ci mënti doon rek ñu yónni yàgg ba xam ana fan la wanent di mujjee ak i ak gëtëm. xabaar yi bitim a fës tey jëlee ci jukkim xabaar yi biti réew yi.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 Sheffield United dafa ñàkk ci kanamu Arsenal benn bal ci ñaar Leicester ñàkk ci kanamu Chelsea benn bal ci dara Newcastle ñàkk ci kanamu Man City ñaari bal ci dara bu dee nag lu soxal fanweeri bëccëg beeg ñaar. ci uh, Premier League bi Watford dafa ñàkk ci kanamu Southampton benn bal ci ñett tey ji ci ngoon nag Crystal Palace moo laale ak Burnley fanweeri bëccëg bekk ñaar Liga espagnole démb Levante dafa am ndam ci kanamu Betis Séville ñeenti bal ci ñaax villa Villarreal am ndam ci kanamu Valence FC ñaari bal ci dara ñaari bal ci dara Grenade ñàkk ci kanamu Eibar benn bal ci ñaax Espanyol ñàkk ci kanamu Real Madrid benn bal ci dara fu mu toll nii nag ca classement ba Real Madrid moo jiitu am na 71 points topp ci FC Barcelone. ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñett calcio italien AC Milan dafa am ndam ci kanamu AS Rome ñaari bal ci dara Udinese Udinese ñàkk ci kanamu Atalanta Bergamo ñaari bal ci ñett Naples am ndam ci kanamu Spal ñetti bal ci benn Sampdoria Gênes Sampdoria Gênes ñàkk ci kanamu Bologna ñaari bal ci benn Sassuolo ak Hellas na ku nekk ñetti bal nga dugal sa par mu ñàkk ci kanamu Inter Milan benn bal ci ñaar ca Grèce Olympiakos nag bu Pa Abou Cissé moom nag daal dinay am démb ñu dem ca Grèce cos bu Pa Abou sise nag jël na nag li nga xam ne moom mooy ñeent fukki titre ak juróom ci championnat bu Grèce ginnaaw bi nga xamante ni ñetti at ngi nii ñuy wut li ni mel ginnaaw bi ñu amee ndam ci kanamu Athènes ñaari bal ci benn club bi nag daal di nay jiitu ki topp ci moom fukki poñ ak juróom-ñeent di PAOK Salonique. fii ci Sénégal nag syndicat des entraîneurs taxawal nañu ko di ay entraîneurs de football yoo xamante ni daje woon nañ ci mbaxanu CNTS daal di nag. teg ci seen bopp syndicat boobu kii di Badara Sakh di structure boo xamante ni dafa jug rek ngir xeex mboole mi intérêt mboole mi intérêt entraîneur yi nekk fii ci Sénégal ñu fàttali nag kii di njiit li di Badara Sakh ñu fàttali ne nag seen njiit lu yees li di Badara Sarr moom sax jot dafa yore équipe yi mel ni AS Douane ak Casa Sport ki fi nekkoon njiitu fédération basketball bu Sénégal di Baba Tandian moom nag euh, dellusiwaat na ci génn ak àdduna Abdoulaye Seye Moro ki fi nga xamante ni moom moo nekkoon euh, ancien président FIBA nekk tamit fondateur bu dikk euh, africain bu njëkk bu jël africain bu njëkk nag bu ñu tabal raaye foofa ca FIBA Hall of Fame moom nag génn àdduna ci 91 ans Baba Tandian nag moom nag waxaat na li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam nee na daal bu sañoon na Dakar Arena ñu tuddee ko. Abdoulaye Sey Moro kuréel gii di FIFA nag moom amal na beneen bëgg-bëgg amal benn coupe panarap boo xamante ni dafay boole ñi nga xamante ni moom mooy équipe nationale yi mu fas yéene ko amal benn fan ci weeru décembre bu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum deux mille vingt et foofu ca Qatar di compétition boo xamante ni nag dina dajale équipe nationale yu Afrique ak yu Asie loolu sax dafay nekk test ci Émirats ginnaaw bi nga xamante ni benn at moo nar des ci coupe du monde mondial féminin deux mille vingt la ñu koy jeexalee. Australie ak Nouvelle-Zélande ñoom nag ñoo fas yéene amal yi nga xam te moom mooy coupe du monde deux mille vingt trois ginnaaw bi ko mbootaay bi di FIFA xamale. ñu fàttali leen nag moom mooy mondial ci jigéen ñi bu njëkk boo xamante ni dina dajale fanweeri équipe ak ñaar ginnaaw ba ñu ko ginnaaw ba ñu ko taxawalee ci atum 1991 ba léegi moom mooy sax mondial bu njëkk boo xamante ni des na ko amal foofu ca Océanie yi. moo ngi ko ndey xar yi bu ñu la ñaanalee kandaay yu jàmm li mu gënoon a fa ci xibaaru tàggat jaram yi. jaa ngeen jëf ñaanaloo kenn lu jàmm Serigne Moussa Kane tey jii nag altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer ak juin bi ñu nekk nii li ñuy waxtaanee tey bokk na ci gannaaw ba ñu sàkkoo ci kilifa yi ngir ñu ànd ak woyofal ci dogal yi nga xam ne jëloon nañ ko ñeel mbas mi di coronavirus ba ñu def ko cas yi dañu gën a bëri ci euh, Kaolack rawatina ci euh, bi lan ngeen jàpp ne moom la waroon a def te defuñu ko waaye itam lan ngeen jàpp ne buñ ko defee daañu tàggoog moom woon ñu euh, gannaaw ci 88 628 97 te 18 76 33 942 13 47 ci kanam tuuti doon ñu jëlee li ci yéene kaay li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf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 kàddu nag kalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour moo ko wax enquête yéen a kaay yeggee ñu ko les échos yéen a kaay na kalifa bi kay attaqué na dugg na ñaawlu na li nguur gi waroon a def te defut ko ci mbiru corona bi vox populi na ko kalifa bi kay xam nga lu mu wax nee na état bi Macky ak ñim àndal fa ñoo démissionné ci xeex corona bi yaw seetal fi corona bi gën a tasaarooyee fi mu gën a bëree ngay bàyyeendiku naan askan wi dund leen ak corona bi loolu mooy wi dëgg nga am ci am yi dëgg gi mooy corona bii fa ngay moytu rek wala mu la ba pare tin na wax sénégalais yi na leen amul garab ñu ne déetawaay xalifa général des Tidiane nee na état bi yéen laay waxal gis ngeen doxalinu jàkka yi ak jumaa yi seen yoon néew ci bu leen ci dugg ku leen fekk ngeen naan su ngeen duggee ci jumaa yi jàkka yi di julli fa ngeen a war a dandante sëriwante xanaa xamul leen loolu bokkut ak lislaam julli mbagg ak mbagg fa lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na couvre feu ak état d'urgence bi Macky fa ko nar a yokkaat ko xamal l'observateur na ko Macky kay fi mu toll ni faam ko doy jaaxle la def ci mbir yu bëri yu mu war a leeral moo tax dina wax ak sénégalais yi ñaari fan ci weeru sulyee la mu ñu wax moom critique yéen a kaay mooy ne weeru sunay wii corona bi fa fay rey ba doyal ci senegal yow seet tal ci ñaari bés rey na fi juróom-ñaari nit te fi mu toll ni Sénégal yëpp rayagum na fi téeméeri nit ak juróom Walf Fadjri yéen a kaay dëggal ko na ko ci benn ay bés rey na fi fukki nit ak juróom-ñeent moom korona kon nag fañ ko war a wax kor taxawal kañu war a wax taxawal kay ci doxalinam bu lëndëm bu jaxasoo ci xaalisu korona bi mooy ambassadeur bu Sénégal ci réewum Afrique du Sud source a yéen a kaay ñi ko xamal gaañu attaqué nañ ko rek ñaawlu doxalinam keneen ku ñu attaqué ñaawlu doxalinam lool mooy Babacar Ngom njiital Sedima Bassirou Faye coordonnateur bu Pastef xas na ko takk ko lu mel ni xamee ci li yéen a kaay ayaw seetal nee na Babacar ngoom daal fa wéeru ci xameel ak jege bi mu jege président Macky Sall tax mu dem fekk ay baykat yu yor seen tool ya suuf se di ca bay di ca dund ay téeméeri téeméeri at mu ñëw jaay doole ak xaalis ngir nangu seen tool ya 24 heures yéen a kaay ne Babacar Ngom Sedima fi mu toll ne na wax jot na tuuma yi ñu la tuumal fa garaaw li ñu wax na yaa ko def ñëpp ngi koy ñaawlu kon fi mu toll ni tontul waxal ñu xam fu dëgg gi féete libération ne di ci ba pare am gàcce moo daal borom alal yooyu yokk na fa ruslu Babacar Ngom Sedima ñetti téeméeru hectare lañ ko jox ci suufu baykat yi te moom rek de xam na ku wax Charles ñaar téeméer ak juróom-ñaari lañ ko jox mu dem na baykat yi faa leen di jox kenn ku nekk ñeenti junne ngir jël seen suuf si ñu ne déete waayaati forêt bu Bandiang ñaar téeméer ak fanweer juróom benn hectare lañ jox ciment du Sahel ñu dem wàqi foofa ba ray jur ga ba tax libération na neexut ba neexut gàcce moo xam ci suufu baykat yi niñ leen def fa ñaaw trop la neen lu ñaaw ci jël suuf ci littoral bu Ndakaaru ñe cay tudd jege ñaala njiit réew Macky Sall Seydou Gueye weddi na ko ba tëdd ca naaj wa ma ngay andi ay leeral ci la Soleil yéen a kaay yéen kaay bi di laas di ñu xamal ne marché Sandaga Ndakaaru ajjuma fañ koy raase ngir defaraat ko ci anam gu méngoo ak jamono Dakar Times na ko kon léegi commerçant ya ñetti fan ci yeeru soulier ci la ñuy tuxu dem ca wetu champ de di fa jaayee laas yéen a kaay ne def leen ndànk nag am na commerçant yoo xam ne d'accorduñ ci xalifa général des mourides nag woo na ñaari pàcc yëpp waxtaan ak ñoom ngir jàmm am ca diggante ba li narta jur jàmm nag Ndakaaru njaay mooy hab central courant bu réewum Turquie taxawal ca diwaan ba turbine yéen a kaay ne loraange la na jural askanu Ndakaar taaru seen wér gi yaram jafe-jafe nokki mbir yu garaaw moo na la dara askan wi nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Umar Fay leeral askan wi Mansour Fay porté na ko plainte tribunal ngir mu leeral tuuma yi mu ko tuumal ci wàllu séddaleen ceeb mi direct news mel ni ku naan Mansour Fay yow xam nga lu la doy ñeen fukki milliards juróom-ñaar yu ñu wax ne léegi fay nañ ko fournisseurs yi leeral ko ay dëmbo lim la fi wax tontu ko moo gën nga nekk fii di xuppaate ka nappaate keneen ku war a leeral téeméer ak ñaar fukk ak ñaari millions yu ñu ko tuumal départemental bu diwaanu Vélingara laas yéen a kaay ñu ko xamal lenn ci ay conseil am ñoo ko tuumal détournement këpp kees sàcc millions yu bari l'évidence yéen kaay moom di ñu xamal na ca diwaanu Kaffrine wàlluk séddaleem jiwu mi au lieu opérateur ya jox baykat ya jiwu déedéet ñoom xaalis la ñu faf di séddale ba tey yéen a kaay bi di ñu xamal na impôt e domaine ca géejawaay askan wa mer nañ ba futtu ca seen doxalin ba les éco yéen a kaay ne Jean Paul Diaz weddi na tuuma ko tuumal di ko tudd ci ab terrain nee na loolu amut la ca am wax na ko li mu wax moom enquête yéen a kaay mooy xajoo diggante diine Sénégal carte gaa ngi bëgg a jaxasoo de yow da waxoo jàmm a ah, yéene bi nee na li ñu seetlu mooy léegi télévision yi télé yi seen débat yi xas ay sëriñ attaqué wax ju ñaaw ci ay tariqa wala ak i diine moom lañ nemmeeku fi mu toll nii Oustaz Aliou Sall ne ñuy présenté débat yi la war a xoolaat ña ñuy invité tamit ñu xoolaat leen yéen refetut de te mun naa jur fitna nag nay leer la laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na Barça boo moytul mu fori neew de ñàkk championnat ba fa jëli jaaxaan ak Celta ngeen dégg na maa ngi ci xibaaru tàggat yaram Real nag équipe bu mag mag bi fa mbuqi démb espagnol stade yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom sunu làmb mooy ne Sa Thiès ginnaaw bu mu juróom benn fukki million ngir bëree ak rëg-rëg promoteur ba bàyyi na ko fa oo guy gi ngir mu remplacer ko lii yéen a di ñu xamal ne benn xale bu jigéen daal bu am fukki at ak ñeent Adama Ka moom la nu fekk mu takke lange ci buum ci kaw garab faatu ñàkk bakkanam allah mu mel ni ku xaru ba dee ba tey lii quotidien moo ñu ko xamal benn waay daal moo jàpp yaayam ji ko jur yaayam carrément la wax fa koo bojji paaka